ñàkk a nangoo tax mu xam ko. Mm-hmm. am na ñoo xam ni defee nañu ñu seen yaay da doon sëy ba tas. Mm-hmm. ci leen seen yaay amee. Mm-hmm. parce que teel a nangu baa ko moo rafetal. waaw dégg nga waaw jubóo teel a nangu ba. moo rafetal ba xale bi juddu defe na ni moom yaayam daa sëy woon ba tas ba ñëw. waaye am na koo xam ne li tax mu xam histoire am ñàkk nangu bee tax. c'est vrai day siiwal. day siiwal. parce que xale dina toog ba ci yàgg nag. di ana samay bàjjen même bu ñu nee la sa bàyyi dee na. Mhm. dinañ la wax ko. rapidement allo. allo salaamaaleykum. aleykum salaam wa rahmatulah. soxna si na ngeen def. fii di sant. mbaa yéen a ngi ci jàmm. alhamdulilah. jàmm rek soxna si dama gis sama seen émission bi dama si gis sama bopp. ndeysaan parce que cas yooyu dañoo bëri bëri léegi trop. torop mhm. war nañ ci xoolaat lu bëree bëree bari bëri. c'est vrai ndeysaan. man léegi màgg naa nekk naa magum jëm je suis responsable je suis maa ngi liggéey maa ngi yor samay doom maa ngi sant yàlla mais dama manqué amul paternel. dëgg la mooy li loolu wax sama yaay dafa teel a gaañu. Mm-hmm. yaa ngi dégg ma nekk sama famille yaay ñu yor ma bien vrai que manqué wu ma dara mais loolu dafay nekk loo xam ne daf lay manqué à vie. c'est vrai te góor moo la koy teg. dëgg la léegi dama dem ba sama doom yi da ngay may toog ñu may posé question yaay kan mooy sa papa damay ruus. dégg nga dégg nga parce que bien vrai que sama papa reconnaître na ma jox na ma santam. mais problème yi ci biir yëpp mënuma ko xam. parce que sama yaay dundul pour wax ma lan la. c'est vrai léegi ma wàññeeku dem sama famille papa sama ay doomam rejeté ma ndax man maa ci gën a ndaw. wan ma carrément ni yow bokkoo pour ñoom xëy na alalu ndono laay wut si parce que sama papa dafa am lu mu bàyyi. yaa ngi dégg amul lan nga bëggoon. mu ngoog amul doomu baay ci ñoom. ñu rejeté ma carrément wan ma ne ma bokkoo. man mm. tamit ma delluwaat sama ginnaaw toog ma sant yàlla nag bu baax a baax ba ma yaroo ci famille boo xam ne dañ ma bëgg. sama jëkkër bëgg ma manqué wu ma dara maa ngi sant yàlla. Mhm. mais da ngeen teg émission bi sama xol bi tooy parce que ma fàttaliku lu bëri. loolu dama ko jooy a jooy a ba manatuma ci dara. bul jooy de sama doom yi laa la wax fi mu toll nii bi ma gënee njaboot laa ko bàyyi parce que rus naa di jooy samay doom di ma xool. rus naa ko samay doom ñoo ma may courage. may wax nag jigéen ñi mu dal ñëpp nañ sant yàlla. Mhm. nattu la rek. mais mm-hmm. góor ñi nañ xoolaat seen toogaay ndax mm-hmm. jigéen mm-hmm. su ëmbee ni yow la yow la jigéen ku mu tudd ci ëmbam rek am na lu ko waral parce que kenn amewul noonu fit jigéen seqoog moom dara mu tëb ci mbedd mi ku la ëmbal nga ne diw loolu amul fenn mais ñu ngi leen di sant di leen gërëm yéen tamit kontaan nañ seen émission bu baax man dama leen di suivre tout le temps dama leen di suivre parce que li ma wax rek génn ngeen ma ci lu bëree bëree bëree c'est la première fois ma woote télé musuma ko def mais émission bi daf ma touché. Mhm. ñi mu dal ñëpp nag ñu ngi leen di sant ne ñu muñ rek. te xam ne ndogalu suñu borom la. waaw ku ñu jéem a muñ loo yàlla. mais nag vraiment loolu daf lay topp toute ta vie da nga koy traîner. Mhm. nekkul looy fàtte parce que sa doom yi nga jur sax da ngay rus a waxtaan ak ñoom parce que du am loo leen di wax. parce que xam nga xale léegi dañoo jàng dañoo curieux dañ lay laaj du ne. Mhm. léegi nag xale xamul frontière. da nga am foo xam ne yow foog waroo fa yem moom xale dafay bëgg dem jusqu'au Mm-hmm. mais nag ah natt suñu borom la ñu fekk ñun jigéen tamit ñu defaraat suñu toogaay ñu bañ koy teg suñuy doom tamit ndax doom moom demandé wul à naître ñun ñoo ko defar. Mm-hmm. mu ngi noonu maa ngi leen di sant di leen yàlla ngeen fi yàgg te wér kontaan nañu lool macha allah kontaan nañu trop. jërë ngeen def merci. merci beaucoup jaajëf. Euh, mu ngoog euh, franchement ñu ngi lay jaajëfal. émission bi guddee xol yu tooy. waaw ah, ah. waaw yéen mën ne dugg macha ci dara macha allah ñu leen jaajëfal ñëpp di profité di souhaiter un joyeux anniversaire sama sang. Yafaati Thiawlaay madame Diouf Sarr. Hmm. suba la anniversaire am. Hmm. macha allah joyeux anniversaire Thiawlaay. la de la part de de la part de Xarit Thiandoum. Euh, maa ngi souhaite un anniversaire nga dund lool wér lool sama sang boobu nga xam ne sama sang bu may tiitaroo la sang la wala jaam moom moo may jaamu.